Euh, Pierre ñu bañ a temps rek ndaxte kii déclaration nañ ko teewlu. waaw ñu déglu il y avait une communion entre nous et les populations. les gens scandaient des mots personne ne pouvait entendre même la sono était était engloutie par la réaction des populations donc euh, cela augure euh, une favorable à notre candidature. satisfaites-vous de l'affluence des, des, électeurs Oui, Cette année, il y a une particularité que les gens n'ont pas analysée. C'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal que les populations ont la possibilité d'élire directement leur maire. C'est la première fois. Ça qui motive l'engouement des populations parce qu'ils ont l'occasion de choisir leur maire. Ça que nous avons remarqué un peu partout. Euh, certains m'ont posé la question à savoir pourquoi cette campagne bruyante qu'on n'a jamais connue. C'est exactement ça. Ah, nous devons encore continuer à faire des efforts en ce qui concerne le mode d'élection pour que la démocratie aille de l'avant. Le mode d'élection est toujours biaisé ah, pour les élections locales et pour les élections législatives. Je pense que le prochain chantier de la classe politique, c'est celui-là. waaw naa ba pare maa ngi sant yàlla di gërëm sama ñaari waajur di wax ni woote naa ba pare ci jàmm may ñaan bis bi yëpp ñu woote ko ci jàmm ndaxte jàmm ci la lépp ci yàlla di tànn tànn na ko ba pare. li ñu waroon a def nag def nañ ko dem nañ ci population yi euh, exposé suñu programme surtout wax leen bilan bi moom biñ ko wax sax parce que ñooñu ko doon rappelé fu ma dem par exemple ci Dakar population yi ñoo may wax ni lii yaa ko fi defoon l'exemple que je donne la Médi à la Médina dafa bokkoon ci deuxième phase de l'éclairage public de Dakar des quartiers toute la Médina était éclairée Google tapez Colobane et et e, e alors ma koy wax ci rajo yi ak ci télévision yi mais ba ma demee Medina ndekete lamp yooyu tàkkatuñu faute d'entretien ma ni boog <laughs> ñi nga xam ne ñooy laaj dëkk bi ñu ci bari jaar nañ foofu ah te lamp yooyu tàkkatul boo fay jógee amul benn lamp boo xam ne rek du woon tàkk ci Medina amul benn rue c'est comme ici à la Gueule Tapée te loolu la ñu bëggoon def dans tout Dakar mais depuis dara defuñu ko ci continuer wuñu aussi programme boobu donc euh, loolu laa gis euh, ma yaakaar ni population yi ma taseel muy Gueule Tapée fii ma dëkk ak ki nga xam ne mooy Cheikh Omar Sy mooy suñu candidat fii ci Gueule Tapée Fass Colobane moom itam am fi ancrage bu baax a baax yaakaar naa ni ak ñum àndal ñoom Moustapha Diop mooy tête de liste proportionnelle nga yaakaar naa ni bii mooy doon première commune bu waaw li ñuy bañal ñeneen ñi loolu la ñuy bañaat tey euh, tey du bisu euh, campagne maamu bu fekkee yaa may dégg euh, nga rappeler Pape Diop que ni tey du bisum campagne am na quatorze jours expliqué na programme présente présenté na ay candidat am ci gox-goxaan yi donc tey nañu wax rek ci li mu gis tey ci scrutin bi tey est ce que yaakaar na ni vote bi dina jaar ci yoon est ce que dafa am ay couac yu muy signalé et tout dafa foofu lañ leen di xaar mais pas ci dellu siwaat ci campagne bi donc ñu dellu siwaat ñu dellu ak maamu maamu waaw du certainement waaw mais peut-être mënoon na am euh, euh, retour bi euh, waa ñu dégg ñu delluwaat peut-être Pape Diop mu bàyyi propagande bi te rek wax ci li nga xam ni moom mooy élection yi bu tey mën nañu ko jëlaat ñu koy ñu mode d'élection bi ñu ndax ndaxte exemple bi may joxe Dakar pour les pour les législatives sept députés la am yow boo rawee benn électeur sax jël sept yi xam nga kooku c'est pas de la démocratie kii raw trente pour cent lay am en général moo calculer ñëpp euh, trente pour cent nag mënoo constituer la majorité donc il va falloir réfléchir est-ce qu'il faut faire un deuxième tour ou est-ce qu'il faut moduler pour dire que euh, pourcentage bi par rapport aux listes gagnantes qui am na tant pour cent qui am na tant pour cent ñu calculer euh, jox ko euh, différentes coalitions yi ou partis euh, proportionnellement Euh, loolu il faut que ñu réfléchir ci loolu dina renforcer waaru assemblée bi ngeen xam ni wax dëgg yàlla gis ngeen ni mu demee euh, bu boobaa nit ñi danañ mën a xam ni nit ñi lañ fi toogal waaye bari liste nationale liste nationale sax c'est pas mauvais mais nañu nañ ci réfléchir rek ku nekk am nga ci xalaat euh, ñun am nañ ci xalaat ñeneen am nañ ci xalaat ñu seet li gën pour Sénégal ñu def ko euh, pour euh, les prochaines discussions au niveau de la CEDEAO. Euh, ah am na yaakaar de xam nga yàlla mooy def mooy mooy fal mais man li ma war a def yëpp ak ñi ma àndal def nañ dem nañ ci nit ñi waxtaan nañu ak nit ñi surtout wax leen li ñu leen bëgg a defal parce que li ñu leen defaloon ñoom xam nañ ko ba pare. fu ñu dem ñoo ñu koy rappeler bi ma demee par exemple fële même même dans les autres quartiers parcelle fu nekk dañ ma lii nga defaroon yàqu na lii yàqu na lii alors loolu nag day won ni sama passage li nga wax euh, xam nañ ni liggéeyoon na nag li des mooy euh, ñoom ñuy voté parce que man dama am confiance ci électeurs sénégalais yi lu am lu am nag ma xam ni lii la yàlla dogal man aw ma problème. jërëjëf allo. allo Pierre. alo allo Mamou. allo Pierre c'est un des Pape Diop mi nga xamante ne bokk bokk gis-gis nag bëgg a nekk maire de Dakar moom nag euh, gannaaw bi ñu ne dix heures la war a sànni xoppam ngir mën a voter finalement onze heures la daal di dugg si. mën a def devoir euh, citoyen mu nekk euh, ka nga xamante ne rek ñëpp dégg nañ ko ndaxte nee na moral baa ngi fii euh, moom jàpp na ne mën na jël raw gàddu gi ci les élections ñu nekk fii ci nag centre El Hadj Ali Codou Ndoye nekk centre ba nga xamante ne huit bureaux de vote moo fi nekk waaye tamit mairie Gueule Tapée Fass Colobane huit lieux de vote moo fi nekk soixante-dix bureaux de vote moo fi nekk ahit 37 537 électeurs ñoom ñoo fi war a voté Euh, fii nag boo fi duggee du lay njëkk fàtte moo boo duggee force de l'ordre yi ñoo ngi fii dañ lay demandé sa masque waaye tamit dañ lay demandé sa carte boo leen wanee carte ba pare dañ lay guidé xamal la bureau bi nga wax a dem vote ji euh, kon sànq rek incident amoon na fi tamit incident ba nga xamante ne ndaxte gannaaw ki di Cheikh Omar Sy mi nga xamante ne moom moo nekk candidat ba ko gis-gis fii ci mairie euh, Gueule Tapée Fass Colobane dafa ñëw def ay état a xool anam mu ngi jaar ci yoon waaye nag électeur ba nga xamante ne dafa jékki jékki-jékki commencé di saaga euh, euh, le le maire euh, Cheikh Omar Sy am na lu mu ko saaga na ko xas na ko lu ne ndaxte nee na fi def ay ndaxte day perturber électeurs yi waaye tamit dafa bëgg a jaxase xelu ak askan bi mu doon la nga xamante nag fitna diboon na fi sànq ba finalement sax force de l'ordre yi ñoom ñoo mujjee intervenir ngir rek ñu mën a dalal ñëpp avant loolu nag calme lañ fi nemmeeku ñëpp dañuy ñëw voté ci assurance bi gis nañ ne euh, électeurs yi taxuñu fi bëri noonu euh, lu ci gën a bëri màcc yi ñoo fi nekk mais quant à jeunes yi moom nemmeeku nañ ni taxuñu fi bëri bu baax a baax peut-être dana ñëw surtout gannaaw kii di euh, Marseille Euh, Alice Gomis mi nga xamante ne moom moo nekk candidate indépendante ci euh, MPD liggéey maanaam mouvement des patriotes pour le développement moom nag ñëwoon na moom aussi def état des lieux moom sax Fass la wax a voté waaye moom aussi dafa bëgg a nekk euh, maire Gueule Tapée Fass Colobane bi mu ñëwee nag moom aussi nee na gis na ni affluence bi des na ba tax na sax mu daal oo askan wi askan wi ngir rek ñu mën a ñëw voté ci rawatina jeunes yi nee nañ ñëw parce que à travers vote lañ mën a fal ka nga xamante ne moom lañ bëgg waaye tamit toog di critiquer di ne diw lii ak lii la def def fii